jërëjëf ni mbokk yi wéy ànd ak ñun déglu mbégte dellu si ak yéen cabinet bio rahma kaddu gi Ablaye Ndiaye mbokk yi ñu daal dellu si waat rek waxati nga ne li nga xam ne am na ci venu grec ñu ko dee wax ulba gis ngeen ko li moo di graine wi nga ne lii ca nekk bari na lool macha allah waaye da siy mën a jukki rek lenn loo xam ne daanaka dafa bokk ci ñun ci li ñuy jàmbat te di ko dund yenn saa yi nit ne la suma tànk dafay ruux dafay metti dafay tàng jëlal venu grec benn kuddu graine wi nga xooj ko ci kaas su ndox bu mag nga bàyyi ba mu yàbbi su fanaane su xëyee suba nga segg daal di naan dina la dimbali ndax dafay raxas ki nga xam ne dafa am diabète type 2 maanaam suukar su bari lool ci yaram ba yenn saa yi muy nagamal tànk yi am luy dox ci tànk yi ba yenn saa yi bëtam di lëndëm ba yenn saa yi sax mu jékki-jékki mel ni dafay lox wutal li nga xam ne moo di vermiculite su boobaa su la neexee nga jël kudd gu mag gi nga. xooj ko ci un litre ndox et bàyyi ko mu fanaan saay boo mare naan nga naan ba sa biir fees dafay raxas lépp lu nekkoon ci sa yaram baax lool ci ki nga xam ne moo ni am drépanocytose ndax dafay faratal di yëg ay métit yoo xam ni ci lépp luy lam lemu ci moom wala articulation bi cheville bi tànki yaram bi ndax dolli baax ci ki nga xam ne dafay jàmbat lu jëm ci wàllu nerf sciatique ndax nerf sciatique saa nu ko bu ñu ko déggee métit la woo xam ni daf koy yëg ci fas wi mu mel ni luy jam bu defee contact ak direct ak lal dafay métti lool ci moom kon del jël graine bi baax na garab gu yàgg la ak ki nga xam ne daanaka dafay fàtte yenn saa yi mu jékki-jékki teg leen du xam fa mu ko tegati del farataal di jël li nga xam ne moo di fenugrec soo ko dee naan dina la dimbali ndax oméga googee nga manqué dina la ko renforcer ba ngay capté kon yow mii di seetaan ak déglu dee ko farataal di ko jël fenugrec ngëneel li ci am macha allah 77 244 98 05 mbokk mi dëkk Touba yombal nañ la ko foofu mu nga Touba ki dëkk Louga tamit suñu wootee mën nañ ko wax fu mu def ba am ko kon mbokk yi loolu leen indiloon tey Fenuc rek duñ ci taay mukk di ci wax seen cabinet Biorahma YouTube bi Biorahma wéyal ak ànd ak ñun soo amee leen looy laaj wooteel 77 244 98 05 ak ma dañ leen indi gindi leen leeral leen lépp lu jëm ci wàllu Fenuc rek di wul ba jërëjëf ni mbokk yi wéyaan ak ñun déglu mbégte dellu si ak yéen cabinet bio rahma kaddu gi Ablaye Ndiaye mbokk yi ñu daal di dellu si waat rek waxati nga ne li nga xam ne am na ci venu grec ñu ko dee wax ulba gis ngeen ko lii moo di graine wi nga ne lii ca nekk bari na